ñu ngi indi nuyoo ak ñaan bu Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi tam may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam lépp mu mën ko def ni ma ko bëggee te ànd ko ak moom sëriñ bi mi ngi yónnee kàddu yi nuyoo ak cant boo xam ne amut fu mu tàmbalee amut fu mu yem ak mbégte mu rëy rëy rëy ci bis bu tedd bii di bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koo xam ne mooy soppeeb sëriñ bi mooy léppam mooy royteefam mooy sëriñam mooy royukaayam te moom lanu borom bi subhanahu wa taala digal ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana sëriñ bi ci loolu rek la nekkoon Cheikh Mouhamadul Muntaxa nee na sëriñ bi biñ koy gis lépp ci borobam la nekkoon telutoon leneen biñ ko noppee gis boroomam a ko fi nekkal loolu waxtu wu nekk mu di ko baamu muy sant bu baax ci ni ñu taxawee guddi gàmmu gi nga xam ne lu sëriñ bi fonkoon la loo xam ne moo ko daan defal boppam te ba ko tàmbalee yàgg na lool mën nañoo wax ne moo maaseeg yoonu murid walla mu jiitu ko ahyaytu mawlidi nabii min ashashin wa qaada lii fawqal munaa fi hamshashin kon loolu yàgg na lool sëriñ bi daan ko defal boppam daan ko defee nii ñu koy defe di jàng xasaayid di di jàng barsan ji bii nga xam ne day nafaraat siiras Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba mu feeñagul ba bi mu yegsee sànq bi ñu gëmee ne yegsi na defe naa ne ñëpp seen yaram daw na seen xol tooy na ñu taxaw màggal gu gan gu tedd googu yi waaye topp siiraam nag ba ni mu delloo ci rafiqil aada boobu moom itam defe naa ne nafaraat nañ ko bu baax a baax a baax waaye gàmmoog ren gii nag doon altine ku ne xam na ne sallallahu alayhi wa sallam bis boobu la fi ñëwoon bis boobu la duggoon makka madinatul munawwara waaye bis boobu itam la dellu woon ca borom bi subhaanahu wa kon guddi gu màgg la sëriñ bi bi muy joxe ndigal li daa wax ne na ngeen ma fasaale sëriñ bi ne na nu fasaale ko kon nag murit bu nekk ci noonu na teewlu ci xolam la mu bëgg rek ma fasal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha te yéene waale ci boppam sëriñ bi nee na na ngeen ma fasaale ndax dafa ne dama leen di yóbbante kat li ma li ma yéene mooy na ko daan def di ñëw di ànd ak yéen tey laa ko gën a yéene waaye nag noonu noo koy sakkanal waaye mi ngi fii ci kër gu mag gi di ànd ak ñun ci liggéey bi waaye nee na nañ jot li mbooloo mi ne nañ ko fasaale xam naa ne am lañ koy fasal dana rëy lool waaye luñ ko fasal dugal ci sunu bopp sunu borom dan ma ko defal tok ci barab bu sel bi ci diggante bi nu nekk ku tedd ki yi sunu wet ñu fanaanee tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gu luñ ci fas gëm ne sunu borom ñu ko defal ci sëriñ bi kon lu pas-pas yi gëna reey rek lu tuti lay doon ci borom bi subhanahu wa taala na muy ndigalul cheikh mohammed muntaha nee nañ ko fasaale kon nañ ko ñaanal sunu borom na borom sunu borom rek ta ci sunu waxi dong nag mu yàgg fi lool te amul wér ndax yàggam fi njariñul réew mi la njariñul jullit yi la njariñul doomu aadama yëpp la njariñul àddina bi la yàlla na fi yàgg te wér ba mottali li mu bëgg a def lépp dana ànd ko ak moom ci barkeb Cheikhul Khadim xasaayid yi ñu fi jàng li ci sëriñ bi tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku ko waxoon ku mu mën ne doon lu mu am dana la ko jox lu mu am sëriñ bi tàgg na ko ci tàggin woo xam ne mësunoo dégg ku ko tàgge noonu waaye julli na ci ñoom julli na ci moom ci julliin woo xam ne mësunoo dégg ko jullee noonu ci moom te lépp lu mu def borom bi subhaanahu wa taala nangul na ko ko kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikhul Khadim la sëriñ bi waxoon ne nag bu laal suuf nee na bu laal suuf loolu dañ ko war di fàttali waxtu wu ne liggéeyub sëriñ bi dañ ko taw bu laal suuf te sëriñ bi léppam moo doonoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon roy ca njëlbeen nga la waxoon ne yéeneem ak li ko tax a jóg mooy dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax fu bari wa sunnatahu algarra inchaa rabbi ubayinu man nahjuhu oxyi fu ne wax na ko fa yonent bi rek moo doon roy tefam kon ku roy sëriñ ku topp ci sëriñ bi yaa ngi ci li yoon wi nga xam ne moom la borom bi wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na ba mu laal suuf nañ doole feddali sunu laxasaay sëriñ bi nañ na ko nikk ne ko ne ko ne ko ne ko nëkkatee ko ak sunu fukki loxo te la mag ñi daan wax ne loo fonk da koy def ca ba bëñ bëgg na a sori te bul nañ def foofa sëriñ bi nañ ko ne jàkk rek nañ ko ne jàkk ndax moom sallallahu alayhi wa sallam rek la defoon muy royukaayam kon noonu it nañ def sëriñ bi rek muy sunu royukaay buñ xool lenn buñ bëgg lenn buñ seet leneen loolu sëriñ bi ndax loola rek mooy sunu texe àdduna texe àllaaxira ndaw ñi sëriñ bi mi ngi nuy fàttali ñetti bay di sëriñ bi njëkk yooyee ca téeram boobee nañ koy nafar waxtu wu ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda huda googee man mooy hadiyullah man yahdi man yahdihillahu fala mudilla lah fu ne borom bi wax na ko fa ci alquranul karim nañ xëyñtu njub googee ca fas yéene cee nekk laa tastaxiloo anil huda day mel na wax ji bu yemoon foofu tam mu doy sëkk waaye wabil ulum istaxiloo mi ngi ci soññi waat ndaw ñi wabil ulum istaxiloo wabil ulum istaxiloo wax ñu nag nañuy jànge fastaxiloo bil xifdi wa tilaawa waaye wajtanibu majalisa shaqaawa majalisa shaqaawa boobu nag ñu ndaw ñi dañ cee war a taxaw di ko nafaraat ndax léegi dafa mel ne doonatul ab jataay bu nit ñi daje waaye jumtukaay la boo xam ne nit ki daf ko yor ci poosam ànd ak moom fu mu jëm njariñ bari na ca lool waaye lor bari na ca kon nañ jëfandikoo ci wàll googu ndaw ñi la mag ñi daan wax daan roy ak romb lépp lu baax loo xam ne jullite ko moom ñu war ko yor jariñoo ko nañ ko jël jariñoo waaye leneen bu lu dib safaan buñ jéem a xam sax lu ca nekk nañ ko romb rek jàll sëriñ bi nee na loolu bayit la yoo xam ne dañ koy nafaraat waxtu wu ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi ishtaxilu fashtaxilu bil xifdi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqawa wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila huda wa qaida loolu defe naa ne ko meen jataayu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak ñu baax ñi fi nekk kon loolu mooy ndigal li nga sëriñ bi joxoon di sant nag mbooloo yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi def jëwri ñi liggéey bii ndax liggéey bi ñëpp a ko bokk guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit yëpp ko bokk ñëpp ko bokk waaye sëriñ bi nee na taxawaay bi rafet na xolam sedd na nee na xelam dal na rëttiix baatu rëttiix boobu ci sëriñ bi laa ko déggee waat tey nee na xelam dal na rëttiix ci liggéeyu sëriñ bi xam na ne des na ko taw tëddulaal suuf te liggéeyu sëriñ bi rek mooy i'laa kalimatillahi al-ulya yàlla u kalimatillahi al-ulya baabu na ko nee na loolu rek moo fi bàyyi woon sëriñ bi loolu mooy liggéey bi kon nañ ko taawu boobu laal suuf di sant mboolem nag ñi nga xam ne ñoo taxaw ci liggéey bi muy muqaddamatul xidma ak rawdu rayaahin dañoo nekk ci bopp bi waaye ni ma ko waxee ñëpp ko bokk ak mboolem ñi nga xam ne nag ñëw nañ jàpp leen ci liggéey bi sëriñ Afiya mi ngi wax ne nañ ko santal ki nga xam ne itam moo waajal barab bii at mu jot mu di ko def ñu ñaanal ko sunu borom yokk kattanam yokk yërëmam waaye képp koo xam ne indi nga fi yàlla nañ dugg ca loolu sëriñ bi wax ne fa man taaman haya a li man lahu qad qaraa mubajjilan fa xaba a xayraati ahli lhimami wa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami la ca topp yàlla nañ ca biir li nga xam ne sëriñ bi digg na ko ci ku duddal guddi nii ñu ko dundalee taadimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati te ku ne xam na ne ba timis jotee ba ndëgg ni bis ci sunna rek lañ nekk istixfaar dikrullah salaatu ala nabi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan borom bi subhaanahu wa te yooyu yëpp mooy jaamu yi gën a mag ci jaamu yi gannaaw julli farata yi kon loolu lañ fi nekke woon noonu la ko sëriñ bi daan defee noonu la ko diglee woon noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha diglee yàlla na fi yàgg te wér yàlla suñu borom nangul nu seriñ bi nee na lépp luñ fi indaale ci jàngoro yàlla ko yàlla saafara képp ku fi indaale yitte yuy niru lu diis ci yow lu yomb la ca borom bi subhaanahu wa taala yàlla ko sunu borom faj ci barkeb Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ci barkeb soppeem bii nga xam ne moom moom guddi gi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def ci jàmm ci àdduna bi yal na yàlla yokk xéewal yi yal na yàlla ci ñu doon ay jaamam dëgg dëgg jaame borom bi subhaanahu wa taala te di ko nam ko bëggee te mooy jaade ko ci li nga xam ne moom la ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa ma ataakum rasulu fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu yal na yàlla def ñu teewee ko at yu bari lool te fayal ñu Cheikhuna al Khadim kem kattanam borom bi subhaanahu wa taala faye ñu njabootam gu tedd ga sa mbërtal yërmandeem ak njëggalam ci ñoom def ko ci mboolem murit yi def ko ci mboolem jullit yi def ko ci mboolem doomu aadama yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu